constat visuel bi nga xam ni moom lañ def mooy matériel yi nur na lu baax am na solo nag ñu càmbar ko sur le plan technique xool fiche technique yi xool aussi fonctionnalité bi mais daal euh, ci li nga xam ne ni ñu ko gisee daal am nañ ci yaakaar ci professionnalisme bi nga xam ni moom la artisan sénégalais yi wane. li ci gën a neex aussi mooy euh, dañu dajale aussi am na loo xam ni waa Kaolack ñoo ko defar. lii waa Fatick ñoo ko defar lii waa mbuur ñoo ko defar mu wane ni aussi vraiment expertise bi am na partout au Sénégal te loolu lañ ci jublu aussi pour am partenariat boo xam ni dina wërngal Sénégal yëpp. defaral nañ ñu bac à ordure mooy bac à ordure yi nga xam ni moom ngeen di gis ci mbedd yi camions yi di ko yëkkati mais defe nañu defar nañu aussi li tubaab di tuddee corbeille de rue mooy euh, corbeille yi nga xam ni moom la ñuy takk. ci bëtu lamp yi wala ci wetu pont yi nit ñi nga xam ne bu ñu naanee café wala leneen mën nañ ko ci sot sotti defal ñu aussi loo xam ne am na solo mooy chariot bi nga xam ni bale yi moom la ñu yore ndax boo gisee souvent da gis ñu yore ñu a bac à ordures di ko xëcc chariot bi nga xam ne lañ defan nag dafa nekk chariot boo xam ne dañ koy pousse li tubaab di tuddee ergonomie daal ci lañ ci lay gën a ëppee ndax pousse bi dina gën a yomb pour agent yi nga xam ne tey jii dafay dafay jafe ci ñoom pour chariot bi diis ñu nekk di ko xëcc donc ñetti euh, éléments yooyu lañ doon seet si tey pour xool seen niveau de fonctionnalité. waaw loolu am na solo ci développement wu réew mi ndax entreprise locale yi le capital privé sénégalais dafa am solo lool ci économie Sénégal tàmbale ko ci artisan yi ci euh, secteur privé moyen entreprise moyen yi PME PMI loolu yëpp am na solo ci taxawaayu Sénégal te nguur gi aussi à travers l'action de son excellence monsieur le président de la République jël na ci ay textes de loi pour encadrer loolu ngir secteur privé local bi mën am seen wàll ci commande publique bi defe naa moom loolu la doon insister du ñu def lu dul euh, ànd ceeg moom ndax loolu am na solo loolu mooy tax aussi suñu doom yi ñu mën am ay liggéey liggéey mën a yokk koom mën yokk ci Sénégal